ba ay recours. waaw nee man xam nga dama xaw jaaxle parce que El Hadj bi muy commencé dana moom juriste la émission bi ku ko jël en cours xama ne kii avocat la boo ko dégloo doo xam ne juriste la parce que bu fekkee ne dañ la laaj conseil constitutionnel décision bi ñu jël c'est-à-dire da ngay indi ay arguments juridiques pour ne ànduma ci soit nga ne li ñuy def c'est pas du droit wala ñuy def droit la. mais mënoo taxaw sur des soupçons nga ne parce que dañ leen a accusé ñaari magistrat je ne sais pas qui parce que même j'ai dit ah, cinq magistrats yi cinq j'ai cinq mën nañ délibéré cinq kenn ki moom bañ na ko ba dafa retiré woo kenn ki retiré wul mais j'ai à cinq ba quatre les magistrats peuvent délibérer donc le problème ne se situe pas à ce niveau boobu yëf yi tappale la comme ko professeur doon gis nga ñoo ko def ñoom xam nañu affaire tappale la preuve commission d' enquête boobu lu ñu wax ñu ne léegi on la décision le procureur va ouvrir une information judiciaire dégg naa ko mm-hmm. ce qui signifie que ñoom lañ doon wax ay d' ailleurs boobu même soo gisee seen résolution boobu ñoom mais seen article li ñu laaj affaire corruption sax newu ci ils ont demandé à ce qu'on fasse une clarification sur le processus électoral ñoom ci yooyu lañ doon wax mais jamais ils n'ont évoqué un problème de corruption au niveau du conseil pour dire que ñooñu lañ doon wax keroog wax naa ko fii député bi toogoon fii ma ko yéen tappale ngeen doon def parce que xam ngeen ne li ngeen wax dara du ci dëgg kenn ci ñoom taxaw ñëw na fii seen TV daal ne waa PDS ils n'ont aucune preuve à l'endroit de ces magistrats de de ces magistrats là. donc saa waaw donc dire que ñoom xam nga franchement bu ñu nit ñi sonal ci loolu dañuy wax ne ñii li ñu àtte ndax tegu na ci droit wala tegul ci droit. su fekkee ne tegul ci droit da nga naan ñi amuñu compétence juger une c'est-à-dire wax sur une loi constitutionnelle wala am nañ droit wax ci mais c'est ça loolu foofu rek l'affaire bi nekk te magistrat yi soo leen soo déggee waa conseil constitutionnel li ñu génnee ak ni ñu motivé seen décision bi mais nga xam ne et d'ailleurs ça ne personne ça ne surprend personne wax naa leen ne boo xoolee la jurisprudence de 2006 et de 2016 c'est-à-dire que mënuñu woon def leneen dudul loolu. mënuñu c'est-à-dire clause mënuñu ko laal c'est pas possible et am na ñu fi wax ne way les lois de révision constitutionnelle amuñu droit ñoom laal ci SS du dëgg c'est pas vrai d'ailleurs même soo xoolee constitution bi article li mu li mu wax mhm. soo xoolee la loi organique bu 2016 boobu aussi article euh, euh, comment dire article 1 bi li mu wax il n'a jamais été dit que ñoom amuñu droit prononcé sur une loi constitutionnelle on a simplement dit des lois ñoom ñoo tënk seen bopp ci benn jurisprudence boo xam toujours moo leen di yemloo foofu mhm. mais waxuñu loi ordinaire waxuñu organique waxuñu loi constitutionnelle il n'en na pas du euh, du tout euh, question. waaw donc léegi ñoom jël nañ une décision décision bi nga xam ne c'est la sage décision et c'est là où ils ont fait preuve de sagesse. parce que aussi. Mm-hmm. fii dañ fi tàmm a gis ne chaque fois conseil constitutionnel décision bu muy génnee c'est des décisions qui sont toujours favorables au régime toujours nag. mais bii moom c'est-à-dire il ne pouvait pas se dérober par rapport à cette situation-là parce que loolu du faveur bu ñu defal Sénégal mais ñoom c' par rapport à la décision euh, seen jurisprudence de ak mhm. mënuñu woon def leneen loolu. parce que ki taxaw ne mënoo yokk mandat mënoo ko wàññi mënoo ko yokk pour la sécurité juridique. ñoom ñoo ko wax. Mhm. mënoo mënuñu ko c' pas possible. Euh, et li Mame Boye wax léegi dëgg la c'est-à-dire que les clauses d'intangibilité su fekkente ne am na ay wër-wërloo ay détours yu ñu war a mën a jaar ba mën a ne dañu yokk ay un mois deux mois trois mois c'est-à-dire que demee su la neexee nga ne Sénégal dañ koy def empire wala ñu def ko royaume mandat bi su la neexee nga ne limitation de mandat amatu fi parce que ki la may benn rek may na lépp. mën na ubbi yeneen fenêtre. loolu moo tax nag ñoom ils ont pris la sage décision en disant que dañuy retoquer la loi dañ koy retoquer. la c'est aussi simple que ça c'est pas un problème de corruption c'est pas un problème de rien gis nga ñooñu wax affaire corruption ñooñu gëmuñu ko laa wax gëmuñu ko il n'y croit même pas le problème ne se situe pas à ce niveau là nañu bàyyi et puis ça ne peut pas du tout freiner le processus électoral mais loolu tam dafa dafa dafa neexul ci dégg-dégg. non dama ne parce que mënuñu. enfin c'est des faits qui sont tellement graves. que mënuñu taxaw. ne ne ne yoruñu preuve wala. ne ne ñaari magistrat lañ fa accusé dama ne même deux yooyu bu ñu retiré woon ça n'empêche pas au oui, conseil de délibérer sur la question bàyyi la empêché o a kenn la ko ah, de délibérer sur la question loolu waaw El Hadj may ma may ma rek may ma xamal li ma wax rek yow ku toog di la déglu il va douter que yow réellement ndax jàng nga droit wala jànguloo. yow man la. empêché ak palier d' accord damay dama ne yow ku la déglu. il va douter réellement que ndax yow ndax jàng nga droit wala jàngoo droit parce que li nga wax du droit li nga wax du droit non li nga wax moom du droit waaw mais d'accord mais li nga wax du droit li nga wax moom du droit du droit waaw ba d'accord je suis d'accord d'accord naa waaw d'accord je suis d'accord mais yow li nga wax daal du droit très bien waaw toogee day wax droit moo gën waaw d'accord mais soo fi wax yow tam day wax droit yow nee nga juriste nga soo toogee fii del wax droit moo gën jaw alors s'il vous plaît on va pas commencer quand même doo ma divertir man dama nekk ci. Euh, argumentation waaw doo ma divertir dama ne. ay dama ne boo toogatee fii yow tamit di argumenter. il faut amener du droit ici. man wax du droit. waaw continuez seulement du du droit. article cinquante deux boobu ngay le président le jour il la parole. da ngeen ko dégg benn yoon mu évoqué ko. waaw mais maintenant ñemewu parce que le pays n'est pas dans une situation de crise ba mu mën a taxaw ne il va s'arroger comment dire les les les prérogatives que offre l'article 52 dama ne dama ne déglu ma rek le président ci boppam ba mu tooxee nit ñëpp dañ def foog ne danaan il va s'appuyer sur l'article 52 pour mën mais crise moo fi amul La seule crise qu'on connaît dans ce pays, c'est la crise que vous traversez, vous, au sein de votre coalition Benno Bokk Yaakaar. La seule crise qu'on connaît ici, c'est la crise que traverse aujourd'hui le PDS. léegi nag dama ne may ma rek dama ne dama ne dama ne non ma rek. da ne. maître s'il une crise. par crise benno interne. ba pare ne le pays est en crise. l'Assemblée n'est pas en crise le conseil constitutionnel en crise la preuve. les gens ont fait leur travail correctement et aujourd'hui le conseil euh, constitutionnel a délibéré ci nga xam ne moom la waroon. le conseil constitutionnel. benn coow topp leen yéen ñii la coow topp qui refile la patate chaude. yéen ñii la coow topp waaye la góor la s'il vous plaît. et il faut parler aussi droit. maître Serigne Saliou maître ak Serigne s'il vous plaît depuis le début quand même on a un débat assez calme. man bi muy wax déglu dama ko déglu. s'il vous plaît. man de juriste bu nuyu bi yéen yéen trop français dama ne waxoo fi juriste. ñoo ko yow yaa nul. yow yaa nul oh, yow tu es l'avocat le plus nul du pays. wallaay waaw tu es l'avocat le plus nul du pays. mu noonu. moo tax tu ne gagnes jamais de procès. tu ne gagnes jamais tu ne tu ne gagnes jamais de procès. waaw yow xamoo dara. alors c'est dommage c'est dommage s'il vous plaît non non non s'il vous plaît ngir yàlla rek. on va pas duñu duñu dugg ci détail yooyu. s'il vous plaît xamoo ci droit dara da nga ñeme yàlla rek. mais dama ne yow xamoo yow xamoo yaa xamoo ci droit dara. sëñ Saliou yow tamit tu ne parles pas le droit. sëñ Saliou s'il te plaît yow yaa droit yow. non non sëñ Saliou s'il te plaît maa la ko ñaan. yow yaay yow yaay yaa xam lépp xamoo tus dara xamoo. maintenant maître maître depuis le début quand même maa tout à l'heure on a un débat qui est assez calme qui est assez posé. les populations ñi ñuy ils ont besoin d'un débat posé pour ce qui se passe. il oui mais on parle de la république on parle d'institution on parle d'élection présidentielle. on n'a pas eh, bu romb danaan juriste kii man dara ma xam bàyyi ko jàll du ko may dara dara du choisir une date par rapport à l'élection présidentielle analyser ah, waale bien sûr cette décision par rapport à la décision ah, du conseil constitutionnel euh, biñ ko jàngate on a vu que le conseil dafa annulé décret bi nga xam ne président jëloon na ko le 3 février pour euh, euh, dindi bi convoqué woon corps électoral bi pour ñu dem élection le 25 février oui alors 48 heures après assemblée le cinq ñu voté une loi pour euh, jël la date du 15 décembre en vue de la présidentielle mm. maintenant man euh, première euh, appréhension bi ma ci am -hmm. mooy le conseil il a désavoué non seulement le pouvoir exécutif mm-hmm. à travers le décret du président mais il a aussi désavoué le pouvoir législatif avec la loi votée à l'Assemblée nationale mm-hmm. qui a été aussi annulée mu nekk deux cassures yoo xam ne man Euh, li ma ci jaaxal mooy le président quand il s'adressait à la nation le 3 dane woon il avait consulté le président du conseil constitutionnel et je pense que bi ñuy échangé waroon na wax na ko li mu naroon le 3 pour abroger décret bi doon convoquer le corps électoral mmh. alors le président du conseil dans les normes war na ko wax légalité bi ci am wala illégalité bi ci am mhm. naturellement Parce, naturellement alors le mais n'empêche néanmoins le président a abrogé le décret donc man c'est ça man loolu mooy sama interrogation principale la président du conseil constitutionnel bi mu toog président. lan la fa wax lan lañ fa wax. lu ñu waxante ñoom ñaar lan lañ waxante ñoom ñaar. war a déggoo parce que un président.